mbër gàlle yaay mbër gàlle fanaan mbër gàlle yaay mbër ndeysaan xoolal ma Ndeye Gueye mi ngi jaayu ndeysaan nee na tey du bisum jooy tey victoire la moom la Ndeye Gueye wax xam naa Papa moo ko wax ndeysaan mbokk internet suivre à travers Kewel Info ndeysaan Nandi Fall la ak Papa Boy Djiné journée Sam Production foo ci Arène ko war a Papa Boy Djiné bu daanee ma mala prix bi jar deux cent mille. Ndeysaan loolu la wax xaaju na. Ndeysaan Mansour dégg nga Ndeye Gueye. ne ko fan. Ndeye Gueye. Ndeysaan lii rafet na. li rafet na mi ngi encouragé son borom këram ndeysaan moom Ndeye Gueye Ndeye Gueye mi ngi encouragé borom këram ndeysaan mi ngi naan kuy laal sama doom ji xaw la rek la rek lan ndeysaan tey feebar moom moo tax mënu maa wax Alioune Seye de ci loo ne ndeysaan Alioune Seye de ngoog Mansour Papa Boy Djiné moo war a génn nii andi bi daa mel ne andi bi la ndegee di cuuraaye papa wala andi bi la ndegee di papa di di cuuraaye papa wala <laughs> ànd bi yow yow wan ma ànd bi yow ànd génn na Mansour ànd bi lan la. dina ne ne dafa am ay réalité am. non lamb dafa am ay réalité am Pathé. na. gis naa fi ànd. ànd génne lu ciy tegu. moo ma jaaxal xanaa cuuraay da di ko fi génne. ah Pathé. wis nañ ci cuuraay. Pathé xanaa cuuraay du génn. cuuraay lañ ciy waaj a def def nañ ko ci ba mu ngi saxaar. cuuraay seytaane wala lan la. Aïda lu muy wax. ay daa ngay wax di wax. yal nañu yàlla boole yoru Zira. billaay sama doom. billaay du ma ndax taawu yaay mooy yaay. papa boo jinne teguñu gàcce. barki Seydina Mohamed. papa boo jinne lekkul bàyyi ñu naanul bàyyi ñu. papa boo jinne li muy lekk ñun moom la ñuy lekk. li muy naan moom la ñuy naan. papa boo jinne papaam wute ginnaaw. mébétoon ci këram gi yaakaar naa ñëwoon ngeen fi combat bi passé ñëwaat fi combat bi tey am na différence fi papaam tegoon tànkam mu teg fa tànkam tey tey papaam bu del siwaatoon àdduna dina ko defaraatal sa toogaay di ñaan ci yàlla borom bi bu fekkee mooy borom kun fayakun may jaamu yàlla bu xeebu di yeewu di naafile di wax di te musuma faat waxtu juróom yal na ko yàlla wan sama rakk ji tey. yal na ko wan sama rakk ji li may jaamu yàlla bu fekkee dëgg la yal na gi feeñ ci sama ji tey. c'est bon ci barke allah ji Fall yal na feeñ ci sama rakk ji tey. Abdoulaye. lañ war a lañ war ah, ko war a waxoon naa leen cuuraay la nen yaa ngoogu nen de dañ ko war a am na duggoon ci géew ba ba Papa Boy Djiné doon bëre ak na nen toj na nen toj na nen ay waay ñaata nen la. huit toj na douze treize quatorze ay waay yàq na cuuj waay ay waay omelette waay nenu baxal ay waay petit jéego moo ci géew ba ba papa booy di bëre fa ko balde ndeysaan xaritam la ami daa la tablatu nen ay waay tablatu nen la tuur tablatu nen ba la Petit Dieye nen la toj nee na nen ñaata lay jar xale bi nee na nen fanweer lay jar tablette nen tablette nen dala toj tablette nen la Petit eh, toj Petit moo duggoon ci combat sa ko bal da Papa Boy moo duggoon ci digg géew bi saa yu la nee na booy def la attention banaana la ku waaye banaana ji daa fara sax yow mooy te Papa Boy gis naa fi ay mara yoo xam te ne ay mara pël te li ma fi gis ci mara ëpp na 10 mara ci kër Papa Boy Djiné Mansour et je pèse Papa Boy Djiné ko ngemb bari na ay pël firdo pël pël firdo gis naa ko fi gis naa fi ay yeneen ñoo xamante ni dégg naa papa ba combat bi desee une semaine lañ ñëw mu nekk combat boo xamante ni da koo fonk Papa Boy Djiné Nandi Fall papa ndeysaan tey waa Gunaas nuñ ko wuysee tey Ada Fass gis ko tey ndeysaan Serigne tey ki mooy indi Ada Fass tey moom mooy indi Papa Boy Djiné Serigne Ada mooy indi Papa Boy Djiné looloo ma jaaxal ki ki indi Ada mooy indi tey Papa Boy muy Serigne ah nee naa leen Papa ñi ma gis ëpp na di Serigne. Mansour wax naa ko sànq. waaw yàlla noppi na bu yàgg. waaw papa booy ji nee na fam na jotee da ngaa nagamal leen dama siburu. ma Bawa ni kan mesin. Mangana. Ko xay no. Ko xool xam ne tey victoire rek la kanamam indi. Kon daan laay ci loxoom tey. Soo xoolee fi nga xam ne ni ñëw tey. Ñoo ko daan. Ay kilifa rek ñoo ko daan. Daa ko mooy ndéggee. Wane boppam. jigéen yabul góor yabul dëgg neexul day soo papa ngi ci yoon bi di ñëw

Thank <laughs> you. mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay